أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيجي راجعين ñaareelu leçon bi nga xam ne moo topp ci alxawfu min ashirk mooy ragal gi nga xam ne yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam ragal na ko ci ñun ci bokkaale mu nekk ci kitaabu tawxid fukkeelu leçon ak ñaar ci kitaabu tawxid mooy buntab ragal bokkaale baabul xawf min ashirk buntu boobu muy buntu bi nga xam ne mooy buntu ragal bokkaale ab jullit dina ci jàngee ñetti mbir bi ci njëkk mooy jullit war naa mooy tandiku ngistal ñaareel bi mooy jullit bi war naa xam ne ngistal day yàq jaamu yàlla ndax moom mooy bokkaale bu ndaw ñetteel mooy jullit war naa xam naka la ñuy muccee ci bokkaal ci ngistal naka la ñuy def bu mucc ci ngistal jullit war naa xam loolu bu ñëwee ci dars bi muy xadis yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi mu wax axwafu ma axaafu alaykum assirku l asra fa suila anhu fa qaala arriya rawahu ahmad wa tabarani wal bayhaqi suñ demee ci riwaaya bayhaqi dañu fekk bi lafz ayuha nnaas iyakum wa sirkul sarair qaalu wa ma sirku sarair qaala arriya yéen yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na li ma gën a ragal ci yéen nga xam ne moom rek laa ragal ci yéen jullit yi mooy bokkaale boobu ñuy wax bokkaale bu ndaw mooy asirkul asxar bokkaale bu ndaw sahaaba yi daal koy laaj ñu ne ko lan mooy bokkaale bu ndaw mu ne mooy ngistal ngistal mooy lan mooy an yuzhira al abd ibadatahu aw yuhassinuha li yaraha nnaas ngistal mooy jaamu yàlla bi muy feeñal jaamu yàllaam pour nit ñi gis ko wala mu koy jéem a rafetal pour nit ñi gis ko ñaareel lu tax mu koy def pour nit ñi tagg ko wala nit ñi wekk ko yëkkati ko yóbbu ko daraja boo xam ne yëg si wu fa loolu mooy ngis ñaareel mooy tax jullit di ko def lan moo tax ngay bëgg ñu dégg la benn mooy pour ñu tàgg la ñaareel wala pour ñu yëkkati la ci benn daraja boo xam ne xam nga ne yëggoo fa waaye li nga li nga manifestation yi nga manifesté wu ci kanamu nit ñi wala nit ñi yóbbu la moom ngistal nag lu sew la ma a yonent bi ne moom rek laa ragal ci yéen alquran am na lu ñu ci wax ci suratul maun mooy alladina hum yuraun wa yamnaun almaun am na ñoo xam ne ngistal rek moom mooy seen métier ci kon ab jullit day moytandiku feebar bi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ragal na ko ci xeet bi ba di ci soññi naan moom rek laa ragal ci yéen suñ demee ci riwaayab Bayhaqi yi danañ fa fekk mu ne ayyuhan naas yéen nit ñi iyaakum maa ngi leen di wattandikuloo di leen di moytandikuloo wa shirk ak bokkaale ñu ne ko ban bokkaale mu ne assarair bokkaale du ndaw bu nekk ci biir bi nga xam ne du gaaw a feeñ dafa lëbbatu dafa làqatu sahaaba yi daal di koy laaj ne ko bokkaale bu ndaw boobu lan la mu ne arriya mooy ngistal bu ñëwee ci anasiru dars ca mooy élément yi nekk ci leçon bi tomb bi ci jëkk mooy shafaqatu rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ala ummatihi yonent bi dafa ñeewant xeet bi fu leen bëgg fu leen ñeewant moo tax lam yatruk rasul sallallahu alayhi wa sallam xayran illa dalla ummatahu alayhi wala sarran illa hadaraha minhu bu ñëwee ci tomb bu njëkk ci dars bi mooy danañ fekk yonent bi muy ku ñëwent ci xeet lan mooy ñëwant mooy ku bëgg xeet bi yëpp dugg aljanna la bëggul xeet bi kenn dem safara loolu moo tax amul lenn lu baax loo xam ne bu ko nit ñi defee dugg aljanna lu dul yonent bi jàngale na ko wax na lii def leen ko amul lenn loo xam ne bu ko xeet bi defee dugg safara lu dul yonent bi tere na ko nit ñi sori loo na leen ko ndax ñeewant gum leen ñeewant wa ma min xayrin amul lenn lu baax illa dalla alayhi l umma lu dul tegtal na xeet wi ne leen def leen ko wa ma min charrin illa hadaraha minhu amul lenn lu bon lu dul yonent sallallahu alayhi wa sallam soriloo nañu ko moo tax mooy muy ku ñeewante ci xeet bi moom yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam ñaareel bi mooy wa min azami sirk alladi xasaraha minhu arriya bokk na ci li gën a rëy ci li yonent bi mooy te di ko loo xeet bi terañu ko musiba mooy ngistal wa huwa sirkul asgar te mooy bokkaale bu ndaw bokkaale ñaar la dafa am sirkul asgar bokkaale bu mag ak sirkul asgar ak bokkaale bu ndaw moom bokkaale bu ndaw boobu yubtilul amala dafay yàq liggéey ni bokkaale bu mag di yàqee liggéey noonu la bokkaale bu ndaw bi di yàqee liggéey yubtilul amala allazi qaranahu bépp jëf boo jëf bi nga koy jëf nga dugal ci bokkaale bu ndaw bi sa jëf jooju yàqu ak lu mu mën a doon bu dee julli bu dee koor bu dee aj bu dee jàng alxuraan bu dee sarax lu mu mën a doon loolu yàqu na perte nga ko su doon koor la xiif rek nga ci jële su doon julli la taxawaay bu métti nga ci jële bu doon sarax la perte nga sa xaalis amoo dara lu mu mën a doon boo ci dugalee ngistal yàqu na loolu moo tax jaam yi war a jàng siiratu salafu saalih ñoom nan lañ doon def seen jaamu yàlla balaa muy yàqu ndax niñ doon mooy dandikuloo ngistal parce que ngistal day yàq jëf bépp jëf bu mu jaxasoo rek yàqu ko ñaareel bi du yem ci yàq jëf waaye borom jëf ja day am bàkkaar xam nga ne loolu dara gënu ko garaaw yematoo rek ci perte li nga doon def yematoo rek ci bu doon xaalis la boo doon joxe perte nga mais léegi dangay am bàkkaar encore en même temps moo tax jullit yi war ko moytandiku ku mu doon ci ñun nga war a fexe say jaamu yàlla say dugg ak say génn nga génne ci ngistal ngistal baaxul li ann allaha laa yaqbalu min al amali illa ma kaana xaalisan yàlla du nangu benn jëf lu dul loo xam ne moom rek rek rek rek moo tax nga def ko naa def lii ngir yàlla ak mbokk bi yàlla pare na ci yàlla kese tax du ndax am na keneen koo ci dugal mooy mbokk bi naa def lii ngir yàlla ak nit ñi yàlla pare na ci xaaral ma dem julli ji ñu may gis jàkka ja ndax ñu ne man yàlla pare na ci say julli xaaral ma yàlla boo ci dugalee dara leneen rek yàlla pare na ci loolu ngay def loolu moo tax gis ngeen xadis bi xadis yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàng mooy ñett nit ñi jiitu si ki doon jihaad ki doon jàng alquran ak ki doon joxe alalam ki doon jihaad keroog bi ko yàlla ne jëmal safara mu ne yàlla man li ma rey ci ay nit sama fas wi da doon rey ba tànk yi xonq deret sama jaas yi musul teggeeku ci ndodd yéeféer yi yàlla mu ne ko yaa mën a fen kasabta la ko wax ci hadis bi xeexoo woon ngir man mais dangaa bëggoon ñu ne jàmbaar nga nit ñi wax nañ ko jeex gis ngeen moo tax kenn xamul yàlla moo xam moo tax yàlla mu wax ci alquran ne rabbukum aalamu bima fi nufusikum man yàlla maa xam rek li nekk ci dënn yi yow li nga xam ci biti rek nga gis amaa ci biir yàlla moo xam loolu moo tax ci biir war a set su biir ci setul da ngay yàqu da ngay perte moo tax lépp looy def na nekk ngir yàlla moo tax mu ne yàlla tabaraka wa taala du nangu benn jëf lu dul jëf joo xam ne dafa set wicc wicc ngir moom kese soo ci dendalee yàlla ak leneen rek yàlla daa ci pare ak lu mu mën a doon nag ak ku mu mën a doon xataa yonent bi alayhi salaatu salaam boo jëfee benn jëf nga dendale ko yàlla yàlla pare na ci sa jëf jooju ndax yàlla moom kenn du ko dendalee ak leneen moom kese mbokk yi waqat xaafa sallallahu alayhi wa sallam ala ashaabihi مع كمال علمهم وقوة إيمانهم لأنه أكثر موافقة للنفس وأسهل للنفوس إليها moom yonent alayhi salaatu wasalaam ragal loo na ko saxaabaa bi te saxaaba yi kat ñooñu gën a dëgër ngëm yàlla ñooñu gën a jàng ñooñu gën a xam ñooñu gën a jege yonent bi terewul yonent bi di leen mooy te ndikuloo ngistal Abu Bakar Omar Ousmane Ali ak ñeneen ñi mel ni ñoom ñi wëroon yonent bi xoolal ni ñu jàngee ak ni ñu xamee ni ñu jegee yonent bi terewul yonent bi naan leen li ma gën a ragal ci yéen ñii daal mooy ngeen di ngeen di ngistal rek taw rek laa ragal ci yéen allahu akbar te ñooñu ñooñu gën a wér gëm ñooñu gën a jege yàlla seeni xol moo gën sunu xol seeni bakkan moo gën sunu bakkan ñooñu gën ci lépp terewul yonent bi naan leen moytu leen ngistal kon ñun lu nu war ñun fa man nahnu kon ñun ñun ñooy ñan faman nahnu min babil awla yajibu an naxzara riya wa naxaafuhu minhu su fekkee yonent bi tiit loolu ko ñële ba moytandiku leen ñu kon ñun ñoo ci gën a yell mbokk yi ñun ñi nga xam ne ci jamono bu lëndëm bi ñu nekk jamono bi nga xam ne lu bëri lu ñuy def tey ci kaw suuf yàlla taxatul ci lu mu mën a doon nag ci lu mu mën a doon laa wax lu ci ëpp yàlla taxul bu fekkee yonent bi yàlla yonent yonent bi tiit na ko ci saxaaba yi di leen ko moytandikuloo ñun ñoo ci gën a yey waaye nag feebar la boo xam ne kenn ku nekk yow yaa ci mën a saafara sa bopp kenn mun la koo fajal yow rek da ngay góorgóorlu ba lépp looy def mu nekk ngir yàlla kese nga bañ cee rax leneen imaam ali radiallahu anhu wa ardaahu xeex na moo tax gis nga ñoom ni leen ko yonent bi di moytandikuloo noonu lañ koy moytandikuloo xeex na ak yéeféer ba dóor ko mu daanu mu toog ci dëndin génn jaas yi bu ko rendi bëgg a dagg bopp bi waa ji daal di koy tëf li xaax tëf ci kanam bi imam ali daal di koy wàcc jël jaas yi delloo ci mbar bi ñëpp tiit lu tax reyam lu tax nga bàyyi waa ji mu ne bu ma ko reyee du nekk ngir yàlla parce que bi ma tuflit gisatuma woon yàlla tuflit bi laa gis te bëgguma ko rey ngir tuflit yàlla rek moo tax ma bëgg ko rey bëgguma sama bakk bakkan feeñ ci xam ngeen ne loolu yombul de yàlla rek moo taxoon ma bu ko rey bi mu ma tuflee gisatuma yàlla tuflit bi moo tax léegi mer naa sama tension bi monte na te bëgguma bëgguma cee feeñ da nekk ngir yàlla dama bàyyi ko loolu mooy moytu ngistal mooy ngay def dara pour ñu gis wala ngay wax pour ñu dégg wala ngay joxe comme ni ko gars yi def indi indi jàkk ci jàkk ji 10 000 wala indi ci place bi 10 000 daal di tàllal këyit yi ni ko nii ci kaw nii wala sax nga ñëw ba ci rajo bi nga ni waaw dama ci rajo bi nga wax diw moo joxe 10 000 wax ko ci rajo bi su ñëwee dégg ni sax nga ni waa ji mais du ngeen annoncé loolu moom mooy gis naa léegi nag loolu sa 10 000 dem na perte te mënoon na laa ndékki ñaari fan benn perte nga xaalis sa 10 000 dem na xam nga ne 10 000 dépasse na minimum mën nga cee def ñetti fan ay affaire perte nga sa 10 000 un deux am nga bàkkaar parce que defoo ngir yàlla loolu moo tax nit war ko mooy tandi mbokk yi ban yoon la ñuy jaar ba mën a mucc ci ngis tam feebar la nan la ñuy jaar ba faju nan la ñuy def ba wér ba sunu lépp même bu ñuy julli bu ñuy jàng alquran bu ñuy saraxe lépp lu ñuy mën a def ñu mën a xeex ak sunu bakkan ba yàlla rek mooy tax ñu def wér te gis nga seytaan du la bàyyi léeg-léeg ñu ne la doxal julli ci kanam nga ñëw ba taxaw war a kàbbar iblis róofu la ne la na nga jàng baat bu neex jàkk ji xam ne yaa leen raw nga moroomu gaay xëccal baqara nga commencé alhamdulillahi rabbil alamin di xëcc nga dem ba pare iblis rek toog fa lay xam ne li nga def yëpp dara baaxul perte nga naka noonu ci sarax naka noonu ci pénc mi nga ñëw léeg-léeg nga wàcc rek wàcc sa oto rek iblis ne la gis nga fii yaa fi gën a rafet yére fexeel nga jaar ci kanam mbooloo mi ne lañ gën a gis nga saisiyee kenn toggul ci kanam dafa nga toog nga xuusal garaam mbubb bi ñu ñu ngi ko daakaane ñu ngi ko gome ba mu ne gadd nga xuusal moom jëm ci kanam waaw léeg-léeg sax nga gis ku ñëw ba ci kanam mbooloo daal ne nii ba ñëpp xool la nga doog a toog moo tax jullit war a moo war a mooy tamit parce que dafa yàq jëf yan yoon la ñuy jaar ba faju ko moom ngistal yajibu ala al muslim an yudafi an riya war na jullit xeex ak ngistal limaada rawatina moom ngistal saa yu teewee ci sa xol nga fexe saa yu la ne defal nangam bul def loolu defal leneen soo bëggee mucc ci ngistal mooy taxaw nga mu ne la guddalal ràkk yi gàtt neexalal baat bi naqaril ko joxe lu bëri def ko ni ci kaw joxeel tuuti nëbbu ko noonu nga ciy muccee da ngay wuuteeg bakkan bi saa yu la waxee defal nangam rek defal saa su noonu ngay xeexeeg moom mbokk yi foog nga wuute ak moom nga xeex ak bakkan bi ci sellal lépp looy def ci julli ak leneen lu dul julli léeg-léeg nga gis koo xam ne bu julli këram day gàttal raaka yi bu ñëwee ci jàkk ji guddal ko léeg-léeg nga gis koo xam ne comportement am ci biti ak ci biir du benn te nit benn melokaan rek nga war a mel waroo nekk paaka ñaari boor soo demee fii dakk boo demee fii dakk nen rek ni nga mel fee nga war a mel fii moo tax li ëpp ci ngistalkat naa fekk lay doon borom ñaari kanam su demee fi mel nii bu demee fi mel nii loolu baaxul bu mu ne mu ne bu demee fii nii laa mel bu ñëwee fii nii laa mel bu demee fële ne la la mel ci lépp nag soo ci bëggee mucc mooy da ngay wuuteeg sa bakkan ci yim lay digal nga fexe sellal jëf ji lépp looy def mu nekk ngir yàlla tabaraka wa taala ci jaamu yàlla yi ak ci aada yi ibadat bi ixlaasiha lillahi wahdahu jaamu gi fexeel ba mu nekk yàlla kese kese kese kese bu ci leneen rax bu ci bakkan rax bu ci leneen rax dara na nekk yàlla rek suñ nee jaamu gi nag mooy lépp looy def mu tudd jaamu yàlla xam ngeen jaamu yàlla borom xam-xam biñ koy firi luñ wax mooy tur la woo xam ne dafa ëmb boole lépp lu yàlla bëgg ci wax ak jëf te mu gërëm ko loolu mooy al ibada ismun jaami li kulli ma yuhibu llah wa yardaahu min al aqwali wal afaali aw al amal al zahira wal batina loolu mooy ibada wax bu dee wax waxal ngir yàlla léeg-léeg nga gis nit di wax ci mbooloo xam nga ne kii waxul ngir yàlla yow booy wax waxal ngir yàlla te yàlla rek tax ngay wax bul wax ngir ku la jox paas bul wax ndax ay nit mer bul wax ngir am ñu la bëgg bul wax ngir merloo ay nit mais waxal ngir yàlla ak lu mu mën a doon lépp lu tax ngay wax bu fekkee ne mbir mii rek moo tax ngay wax loolu nga ci am amoo ci yàlla moo tax yowmal xiyaam yàlla danaan ana ñu doon gistal ñu ne ñu ngi nii mu ne dem leen ci ñi ngeen doon woon seen jëf ndax di ngeen fa fekk fay izhabu ila allazina kuntum turaa'uunahum a'maalakum hal tajiduuna indahum jazaan ana ñu doon gistal ñu ne ñu ngi nii yàlla mu ne dem leen ci ñi ngeen doon woon seen jëf ngeen xool ndax tey ñooñu danañ leen fay da ngay dem jàkk demal jàkk ngir yàlla bul dem ngir waa koñ bi ne kii jullit la ku bëgg jàkka la déedéet demal ngir yàlla dangay jàng alxuraan jàng ko ngir yàlla dangay saraxe saraxeel ngir yàlla dangay baax baaxal ngir yàlla looy def rek na nekk ngir yàlla waaye boo ne ah man kat ci koñ bi laa dëkk amaana ne nangam ak nangam bu ma ko deful kat perte nga perte nga dangay perte nañ moytandiku beneen bi mooy an yatazakkara an al amala allazi yusaahibuhu arriya yuxbitu wa yaatimu alayhi nit ki na xam ne bépp jëf bu nit di jëf mu boole ci ngistal jëf jooju yàqu na moom mi doon jëf-jëf ji am na bàkkaar moo tax nañu moytandiku bokkaale ngistal saa yoo jëfee jëf nga boole ci ngistal jëf ja yàqu na sippeeku na en même temps yow am nga bàkkaar loolu tax yàlla bi mu ne na ngeen jëf ne ne na jëf ji sell man kaana yarju liqaa rabbihi falyamal amalan salihan képp ku mu wóor ne di nga dajeeg yàlla mu ne sellalal say jëf sellalal say jëf dama dafa gis borom xam-xam bu ñu teewee ci mbooloo ci ginnaaw la ñuy nekk ñu leen jiitalee ñu bañ loolu ñu forcé leen suñ leen waxloo ñu bañ loolu ñu forcé leen bu ñu waxee mu gàtt ndax dañuy daw ngistal suñuy wax ñu wax lu ñu xam ndax daw ngistal loolu boo jàngee dund nit ñu baax ñi da nga ko ciy gis ndax bañ ku leen gis am na ci ñoo xam ne ci yenn jàkk yu ñu doon jullee bu ñu sëlmalee rek dañuy génn jàkka yi ndax bañ ku leen gis ndax bañ sax nit ñi gis leen xam ne ñii ñëw nañ wala ñëwuñ bu ñuy def lu baax dañ koy nëbb kenn du ko yëg bu ñuy sarax dañuy bàyyi ba guddi ba nit ñi nelaw ñu ñëw fëgg ki ñu koy jox ne ko man ak yow ak yàlla kenn yëg te xoolal ñun tey ku ci ku ciy joxe dara da ngay woo télé télé da nga leen nit ñi ñi ñi raa ngay joxe par sac wala par kees télé ngay woo télé ñaata yoon ngeen koy gis ci koor gi ñaata yoon ngeen gis ay nit di joxe ndogu di joxe nangam nangam indi télé indi ay caméra di filmer loolu ngir yàlla la est-ce que loolu est-ce que ngir yàlla la loolu du ngir yàlla jullit nag yooyu la war a moytandiku jullit yooyu la war a daw ñetteel mooy an yatazakkara azamatullahi wa jalaalihi xalaatal màggaayu yàlla tabaraka wa taala ak réyam moom yàlla tabaraka wa taala loolu moo tax boo xalaatee loolu màggaayu yàlla mi la sant jëf ji nga xalaat rëyu yàlla tabaraka wa taala nga xalaat ni mu rëye ni mu màggee kon bu la santee rek di nga sellal lim la def bu la waxee defal li ma la wax ni mu la ko santee noonu nga koy defee nga yëg ni moom dong nga war a jaamu moom yàlla moom kenn nga yëg ne moom yàlla soo ko bokkaalee du la musa baal parce que wax na la ko inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha soo ma bokkaalee du ma la baal te ngistal dafa bokk ci bokkaale nga mooy ta ndikku borom ngistal borom bokkaale mu xalladun fi naar day dugg safara te bu ci duggee dafay sax mbokk yi dugg ci safara sax fa ñun tey ku ñu bëgguloon toogloo ci furna gaz ay seconde ay minute kan ci ñun moo koy nangu fi même bu ñu la ne woon boo paree ñu may la milliard nga faju doo ko nangu te ñun ñëpp bëgg nañ milliard de wala bëgguñu ko ñun ñëpp bëgg milliard mais tey koo ne woon toggal ci furna bi 30 secondes après ma jox la milliard mu ne la téyel sa milliard léegi nag bu yàlla ne bokkaalekat safara la jëm du génn safara te xoolal tey réew mi nit ñi ni ñuy bokkaale waxuma sax bokkaale bu ndaw bi mais bu mag bi tey jii Sénégal lu dul ku yàlla yërëm genn wàll gépp dañuy bokkaale ñii dañuy waat ci ay nit ñii di takki lu kenn xamul ay xërëm ñii di takk ay xaaw ñii di dem ci ay xàmm dimanche ci guddi samedi ci guddi def naa benn conférence fu ñuy wax bopp yaakaar naa gol tàppi mais conférence bi mu jeexee laaj yépp est-ce que nit mën na julli ci kër gu am xàmb daanaka ñoom ñëpp côté boobu ndeke kër yëpp ay xàmb la loolu rek lañ ma doon laaj ñun sunu kër gi xàmb benn waaye ne xàmb gi sang bi loolu rek lañ ma doon laaj te xoolal ay jullit nga nekk jullit génn sa kër sangu ci xàmb bi ñëw dugg ci jàkk ci mënul nekk mënoo nekk jullit ba pare gëm ay jinne da ngay gëm yàlla rek imma shakiran wa imma kafuran mais nekk jullit am ay xàmb soo demee yenn saa yi sax nga jàpp ci xàmb yi doo ko ñëw ci jàkk ji taxaw mais loolu lu mu nekkee jullit day gëm yàlla rek xam nga loolu moo metti ci baat ci sénégalais yi soo leen nee yàlla rek ñu ne ah yàlla rek ñu gis xol yi bañ moo tax mu ne wa ida zukira allahu wahdahu isma azzat qulubu allazina la yuminuuna bil axira suñu waxee yàlla rek nga gis xol yi bañ nga gis ku nekk fu mu toog waaw ñun moom diw foog mu bokk ci diw foog mu bokk ci dangay wax rek dangay wax rek diw ni mu màggi diw yonent bee ko gën a màgg te yonent bi bokk ci yàlla rek jibril ngeen ni màggee waaw am na fu mu bokkul ku nekk am nga foo yem ku baax kooku ku baax la dafa am fu mu yem gis nga jibril dafa ànd ak yonente ba caag yonente dem ba caag dem dem dem dem ba yàgg jibril na yonente bi mënatumaa dem mu ne xam fii laa yem mu ne ko ndax yow kese la mu ne ko ñun ñëpp wa ma minna illa lahu maqamu maaw ñun ñëpp kenn ku nekk am nga foo yem ku nekk dafa am foo yem ku nekk dafa am loo mën mais xoolal fii waxuma dara sax ku nekk mais dañuy jël ba ëppal sax nit ki yonante bi sallallahu alayhi wa sallam léegi nga dégg kenn man bu ma gisee diw man daal wax dëgg-dëgg diw yàlla rek laa koy tollooleel yàlla inna lillahi wa inna ndax diw man yàlla rek laa ma gisuma daal kuy moromam ku dul yàlla loolu est-ce que wax la diw yàlla laa ko mën a tollaleel yàlla waxuma sax kenn mais yàlla da ngay jël mbindeef di ko tëlëg tëkkaleeg yàlla subhanahu wa taala loolu réer la yooyu la ñu war a moytandiku te seytaane moo koy def moo koy taaral suñu xol seytaane moo moo moo lay wax bañal bañal li la waa ji wax bul ko dégg dara day wax rek day wax diw mën naa jege yàlla yàlla la sax nga dégg ko duuxu yàlla la maa ko wax eh bul dugg ci yooyu diw mënul nekk yàlla ndax fii ak ay fan rek léegi nga dégg ñu ne dee na ñu yow sang ko sang ko jullee ko suul ko te yàlla moom xayyun laa yamut kon dañu war a moytandiku mbokk yi gis nga jullit bu bëggee am diine day am tawxiid boo bëggee am diine sa diine wér ci yàlla mooy sa xol bi sa xol bi dugal ci yàlla boo xam bul ci dugal keneen de waaye yàlla moom bul ko dendalee kenn yàlla bul ko dendalee kenn ndax yàlla du moroomu kenn yàlla du moroom boroom la su ko defee nga xam ne jaamu gi ngay jaamu yàlla yàlla tabaraka wa taala rek rek rek nga ciy jaamu doo ci jaamu keneen ndax képp kuy bokkaale yàlla kooku kuy sax ci safara la wa ama sirkul asgar fa huwa taxta almashiati llahi taala seen làmp bi war ngeen koy taal de man gisatuma bokkaale boobu ngeen dégg ñu naan sirkul asxar moom ku ko def rek yaa ngi ci coobarewu yàlla tabaraka wa taala dugg nga ci aaya bi mu ne ku ma bokkaale duma la baal waaye dinaa baale leneen lu dul loolu kon nag nañ ko moytandiku mbokk yi ñeenteel mooy an yadduwa bima warada fi lxadisi saxiix anhu sal allahu alayhi wa sallam allahumma inna nauzu bika min an nushrika bika shay'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lam jullit na bëri lu muy ñaan ñaan bii ñaan bii ñépp ko war a mokkal tout le monde ñaan bi lan lay wax mooy yow yàlla maa ngi muslu ci yow lépp lu ma def ci bokkaale ma yëg ko ak lépp lu ma def te yëguma ko waroo yow suba ngoon jàngoo ñaan bi allahumma inna nauzu bika min an nushrika bika shay'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lam yàlla maa ngi lay jéggulu lépp lu ma la bokkaale te tey ko maa ngi lay jéggulu lépp lu ma la bokkaale te teyuma ko parce que bokkaale dafa sew ashirku axfa min dabibi nam la dafa sew da ngay gis ku jékki-jékki rek daal di bokkaale ci waxinam te teyu kon da nga war a jéggalu yàlla li nga tey ak li nga teyu xoolal yonent bi moo doon ñaan ñaan bi de yonent bi bu fekkee yonent bi moo doon wax yow yàlla maa ngi lay jéggalu ci bokkaale yi ma tey def ko ak yi ma teyut kon ñun lu ñu war a ñaan ñun yonent bi laa wax moo doon wax wax bi ne yonent bi waxuma keneen dama ne yonent bi moo doon wax yow yàlla maa ngi lay jéggulu ci li ma la bokkaale yëg ko waaye maa ngi lay jéggulu ci li ma la bokkaale te yëguma ko ñaata yoon ngay xëy di bokkaale te yëgoo ko loolu moo tax ixwatal iman ñu jéem a làqatu ci sunu ginnaaw boroom ndax moom rek moo nu mën a musal ñu jéem jikko yi nga xam ne wala feebar yi nga xam ne dafa yàq sunu diine ñu jéem ko mooy ci dikk yii nga xam ne dafa yàq ibaada da yàq jaamu yàlla di yàq ay jëf ab jullit war koo mooy ca ndiku mooy ca ndiku bokkaale bu ndaw ci ay waxam ndax man sammaa sammaa allahu bihi wa man yuraayi yuraayi allahu bihi soo ne tey naa wax pour ñëpp dégg ma yàlla day def ñëpp dégg la waaye pare nga yow mal xiyaam safara nga jëm soo ne naa ngis talu yàlla day def ñëpp gis la mais pare nga léegi loolu ban njëriñ la am yow da ngaa bëggoon rek nit ñi dégg la dégg nañ la jeex na amul njëriñ da ngaa bëggoon rek nit ñi gis nañ la gis nañ la jeex na amatul njëriñ kon na nekk ngir yàlla na nekk ngir yàlla yow yàlla ñoo ngi nëbbatu ci yow ñoo ngi làqatu ci yow ñoo ngi muslu ci yow bokkaale yu ñu yëg ak bokkaale yu ñu yëgal aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الدرس